mbokki ci and bi ak radio wal fajri 89.3 mbake Diourbel 102.4 tay nak mbokki yi émission tribune de la campagne dañ ci sekk ak sunuy natango yu Mouride Info ñu ñew fi nga xamne nak nag modi ci euh, quartier général bu euh, zone 3 Benno Bokk yakar nek ci Touba Darou Khoudoss waxtaan ak ñi nga xamne ñom ñoo di waa zone bobu ngir waxtaane campagne électorale waxtane aussi sen candidat bi nga xamné ne le candidat sortant le président Macky Sall waye tam ni nga xamné non lañuy dérouler sen campagne biñu ko tàmbalee ak légui waye waxtane lenn ci ay réalisation yo xamné le président Sall def nako ko ngir yayo ab ñaarelu mandat. tay nak mbok yi kon ni ko waxé ñu wara a waxtaan wi ak ay euh, responsable yo xamné ñongi fi nga xamné ne ci euh, zone 3 bu Darul ci njital euh, Morlo ak ñi nga xam ne ñoom la seqal liggéey bi ba lañuy euh, tambali ak li nga xam modi sunu intervenant yi dañuy bàyyi Talla sila x y xaw ma z wala m dana ñëw introduire sunu émission bi bu ko défé bu paré ci introduction bi ñu and ak euh, le coordinateur mu ubbi Talla ñu bayyi la rek nga dugg ci introduction bi nga bëgg def bo noppé ñu soog a ñëw ak le coordinateur ci première question inshallah euh allah. ngi lay sant bu baax di le remercier aussi ci question bi nga xam ne moom nga ñu posé ndax euh, ñun ay acteurs de développement euh, présenté mouvement boo xamee ne dañ ko tuddee l'émergence pour tous muy mouvement bu mag boo mi ngi partout euh, au Sénégal dañ ko créé en France ñu ñëw fii ci Daru Khoudoss sunu ville natale pour ànd ak comité bi pour liggéey rek pour delloo président Macky Sall li mu yeyoo muy deuxième mandat. Euh, loolu nga wax ci financement bi fi ñu tàmbalee mooy loo xam ne DER bi dafa nekkoon 30 milliards euh, président Macky Sall euh, programmé de le 2019 après les élections pour mu def ko 100 milliards jàpp naa ne loolu kon changement mën naa daal di am foofu bu wér changement bi nga xamee ne kenn ku ne mën na cee tëg bëtam loolu programme la mu ngi ñëw li ciy dolliku mooy au niveau de DER am na ay conditions yoo xamee ne moom lañ ci war a te condition yu simple la jafewul xam naa li may euh, dolli tuuti rek mooy sunu mbokk yi nga xamee ne rawatina ñi dëkk fii ci Touba nañu jéem a sensibiliser nit ñi nga xamee ne ñoo soxla DER bi yan condition la ñu war a jaar pour mën cee am. ndax loo xamee ne trente milliards loolu ñu def ko cent milliards jàpp naa ne ku xam yoon wi gëstu ci da nga ci jot sa wàll incha allah kon nag wut leen ay groupement de femmes ay association ay coopérative yoo xamee ne da ngeen koy def officiellement ndax lu jëm ci wàllu financement day soxla maanaam document officiel loolu danaa leen fi ñaax xam naa jataay bi mooy xaw a xat bu ñëwee ci affaire formation bi 3FPT bi nga xam ne daam Diop daf ko jiite te dëgg yàlla mu ngi ciy def liggéey bu mucc ayib. Ah, donc kon xam naa ne aussi loolu jeunes yi nga xamee ne dañoo nekk fii ci Touba ñoom it nañu xam ne loolu ñoo ko moom ak jigéen ñi. nekk ci en priorité rawatina ville Touba bi nga xamee ne financement yooyu ñu tudd yépp jeune prioritaire la ci kon jeunes yi nga xamee soxla nañu wala transformation de céréales, lay doon sur le coup war doon loo xamee en ci euh, au niveau de l'élevage wala mooy a ñaw wala ku euh, coiffeuse mi ngi ci euh, mais nag euh, ñuy waxee aussi euh, ku ne xam na né fi ci Touba rawatina Darou Khoudoss y a une forte population bo xamé né dañu nekk un immigré donc ñoñu nañu xam ne président teg na fonds bu ñu wax FAISE muy fond de l'investissement de l'appui pour le Sénégal d'extérieur soxna Naata Mbacké moo ko jiite mooy wax dëgg yàlla mu ngi ci def liggéey bu mucc ayib kon ñi nga xam ne ay immigré lañ te bëgg dellusi dellu Sénégal pour euh, investir fi def ko comme ni ko italien yi defee pa seenu réew yàgg fi ñu yàgg Sinois defee ko ba ni yàgg seenu réew nañu dellu si le président Macky Sall teg na ay milliards yoo xam ne ñooñu ñoo ko tax a jóg conditions yi ñu koy defee it ñun danañ ci dox ay jéego ci dëkk bi continuer ko ci campagne bi ba ñooñu ñëpp ñu mën cee am accès waaye nag ngeen may ma ma yegg si ci loo xam ne daf ma ñor lool mooy man damay doomu Touba. te dara ñuruma lu may Serigne Touba ak dëkkam bi. kon nonu nga ko waxee rek noonu lañ koy défé ñu dugg ci euh, waxtaan wi commencer ak le coordinateur euh, zone bi di Morlo Mor kon yaakaar nañu né tambali ngeen campagne bi boobaak légui légui mu wat ay fan. fi ci euh, zone 3 sa bu ñu xëyee ngeen programme mo xam lu ngeen mëna def ba dem ci askan wi leeral liggéeyu le président Sall ba ngeen tambalé ak légui côté organisation côté programme ak eh, bilang bo xam ne ko def ci diirub njëlbeenu campagne bi ba ni ngir wane liggéeyu zone 3 ci bir coalition bi fii au niveau de Touba ndax ville bu spéciale ci eh, électorat wu département bi kenn ku nekk war a apporter sa liggéey eh, ngir dëkk bi mën a am ndam ndam loo xam ne boobaak léegi xiif ngeen ko yàkkamti ngeen ko ta jàpp ne fi toll nii ñor na ngeen war ko jëfandikoo su fekkee dina antu liggéey boobu ak bilang bi dirup fan yi exactement lañ bëgg ci ndorteelu question bi nga dikk ci ak ñun ba may bala may tontu ci sa kàddu dama bëggoon rek nga may mam sant yàlla bu baax jullit ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñaanal sant sëriñ Touba ñaanal sëñ Muntaxa xalif général kullu murit mu yàgg fi lool ci ànd ak wér ziyaare suñu sëriñ kilifa barab bii ñu nekk muy sëñ Ahmadou Maxtaar xalifa daaru xuddoos xam ne lii biñ ko yëkkatee ci moom lañ njëkk a dem ànd ak suñ président d'honneur le camarade Serigne Cheikh Abdoul Ahad Gaynde Fatma nga xam ne liggéey bu am solo lay liggéey ci benn Bokk Yaakaar di ko liggéey fii ci dëkk bi ànd kook ñoom ñu dem ci sëriñ bi sëñ Amadou Maxtaar yàlla na fi yàgg lool ci ànd ak wér moom itam mu ñaanal ñu encouragé ci ñu li ñu def ñu génn ci dem ci njabootu Daaru Xuddoos yëpp ñu ci ëpp ñu dem ci ñoom sàkku ñaan li ñu dugg ñu tàmbali ko ci bisimilahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabil alamina ci bu ñu demee le quatre février ñu am ndam lu leer ca nga wax ko léegi muy ndam loo xam ne wax dëgg yàlla. xiif nañ ko fii ci dëkk bi suñ zone bi ñu nekk xam ne boo xaajoon électorat Touba ñeent benn bi fii la nekk kon ñun ci biir défi euh, bu ñu demee le 24 février ñu am ndam dañoo am défi ñun boo xam ne ñun waa Daaru Xudoos ci bokk ci comité électoral bi

yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Touba kon loolu objectif yu clair la yuñ teg looloo tax programme bi dafa am ay euh, dem ci kilifa diine yi waxtaan ak ñoom kilifa yi nekk ci dëkk bi yëpp surtout rawatina diiwaan bi ñu nekk ñu njëkk ci nag sëñ Ahmadou Maxtaar bi ñu paree euh, ngoon su jot.

ci Abdou Fattah Diop euh, jiite ak Abdou Aziz Gadiaga chaque jour quarante jeunes yooyu danañ xëy and ak le chargé de la communication ñu dugg ci koñ yi nga xamné fi lañu wara jëm dem sensibiliser population yi ak nak effigie parti bi euh, ay t-shirt yoo xam wax deug yalla dañ ci gis photo Macky Sall ak niñ ko bëgg falaté le 24 février. looloo tamit fu ñu dem ñu ngi waxtaan ak askan wi nga xam ne ñoo nekk Daaru Xudoos ci bilan président Macky Sall xam naa dinaa ci dellusiwaat waxtaan ak askan wi également ci ni ñuy def ba mën a wat def vote boo xam ne vote bu mucc ayib leeral également bulletin bi nga xam ne mooy suñu bulletin loolu yëpp jeunes yooyu loolu lañ leen assigné ca bañ tàmbalee ba léegi ñu ngi ciy joué rôle bu am solo kon ma ci profito ci ndaje mi sant leen gërëm leen encouragé li leen ci loolu euh, suñu doxantu nag ci ngoon gi lay tàmbali ndax suba si xale yi ñu ngi dugg ci kër yi fu ñu war a dem ak kër kër këraanoo mais am na beneen équipe boo xam ne sage yi euh, ku mel ne sëñ Xaadim Njaay mii ku mel ne ñoom sëñ Ibra Kan ak ñoom Cheikh Dieng ak euh, El Hadj Ndiaye El Hadj Falulu Ndiaye gindi askan wi ñun ñooñu ak ñoom Cheikh Abdoulou ak Abdou Niane ñu ngi def ay proximité dem ci marché yi dem ci corporation professionnelle yi ak ci kilifa yi pour waxtaan ak ñoom ci li ñu bëgg loolu mu nekk liggéey bu am solo ngoon si nag liñ ko réservé depuis biñ commencé ba léegi après le meeting d'ouverture bi ñu defoon Mbàkke mooy ngoon si ñu def ay doxantu ci dëkk bi tudde ko nag sargal femme sargal les GPF ndax li may wax lon ci jigen ñi rek ñun objectif bobu lañ ci am Jigen ñoñu nak fuñu dem ñu ngay regrouper GPF soxna Astou Bassel mi ak jigen ñim andal ñom ñep ñi ci ngi ciy bu am solo defé na légui lañ joggé daru ca kaw ndaje mu am solo amone fa ñu rencontrer fa GPF yu bare bare bare bañ tambulé ba également ndaje remarqué dem wax danañ mi surtout ay classe de xaar ont ci nous bëgg euh fuñu dem itam danañ ñu euh, engagement le 24 février président Macky Sall lañuy ñuy carte yi yi ci mi yépp ñëpp mais si nous sommes Touba vraiment euh, sante yalla rek ndax buma l'autoroute Ila Touba 416 milliards le ci président def ñun ñi barki ci Dakar mais si ci bo ci duggé bo woo watuwul sax des choses, man sama chauffeur bi dama autoroute autoroute lu tuuti ma àgg kawlax ndeke président Macky Sall moom yëmut ci autoroute Touba rek ma nga autoroute Mbour autoroute Kaolack loolu nag sëñ bi bilan la bilan la waaw kon daal loolu ca danaa ci dellusiwaat ci yeneen yi nga xam ne euh, sama nawle yi dama leen di bàyyi rek ñoom itam ñu mën a wax ci bilan bi mais fii moom président def na fi lu rëy Ila Touba bi mu àndoon nag sëñ Mountakha ubbi ko ubbi ko barki démb ñun ñëpp ñu teg suñ bët assainissement dëkk bi rayon jumaa ji Daaru Xudóos Guy Mbind Touba moske ñaari étage Gédé li jëm Gédé tali Gédé bi bu mosaan taw fii ñi fi yàgg Touba xam nañ ne kenn lépp day tëju waaye Macky Sall bi mu ñëwee nag la fi def ay investissement yu lourd ay canon de grand diamètre la fi def ay xale sax mën nañoo daw ci biir nit mën naa daw ci biir Dever ay station de pompage bi nek ci marché Ocass ak ci grande mosquée bi ay bassin bassin Kër bi bassin bi nek ci Darou Rahman ñu doubler pompe yi conduite d'eau yi xamné bu rek ndox mi dem amut gis-gis def ci lolu président def ak réalisation yo xamné ne né dana ci ak sama aussi de ci ma ngi jërëjëf coordonnateur Morlo ñu ngi koy gërëm di ko sant ci euh, ni nga xam ne kon noonu la ubbee jotaay bi bu ko defee ñu jàll ci sunu deuxième intervenant di ki nga xam ne mooy Maman Astou Bassel moom yaakaar nañu ne euh, dafay continuer euh, cirque bi coordinateur jëloon muy bilan bi waaye moom ci côté santé lay jëmale ay waxam ndax jàpp nañu ne ñoom jigéen ñi na nga xam ne noonu la ñu gën a gisee seen bopp ci wàllu bilan bi ci côté santé la par rapport ak CMU ak yu mel noonu kon dañuy jox kàddu yi Mass Bassel bu ko defee moom it mu yëkkati ko ci turu euh, jigéen ñi. ñu sant Serigne Touba di sant suñu ay waajur ñu ngi sant suñu waa comité électoral bu Daaru Xuddos bi waa zone 3 di ci jiital nag suñu kilifa yi nga xam ne ñoom lañu nekkal fii ci zone bi di ay sëñ Ibra Kane le coordinateur Morlo staff féminin bi yëpp et masculine ñu ngi leen di sant ñu leen di gërëm parce que déjà le monsieur Talla Sylla la. moom def na présentation bi ce n'est plus la peine ma ci mais bilan président Macky Sall ku ma ci surtout en matière de santé man danaa santé sant danaa ci sawar danaa ci tout tontu parce que mon depuis 33 ans je suis en service dans le dans le corps sanitaire mais machallah allah doon nañ dund ay problèmes yo xamanteni ñun ñi ne ci biir corps sanitaire bi sax doon am jafé jafé jafé jafé moy lan so sañoon sa mbokku julit sa mbokku taalibe soxna yi bu ñu ñëwee ci yow dañuy am satisfaction à 100 ñëw am la ñu bëgg faju ni boîte ci seen kër mais amoon nañ ay jafe-jafe yoo xam ne dundoon nañ ko yu depuis des années ay gouvernement yu bëri jaar fi nag wax dëgg yàlla malheureusement mosuñu woon am xëy na aperçu bi président amoon ci loolu mais actuellement li ñuy dund ak CMU couverture maladie universelle bi mention spéciale au président de la République du Sénégal ñu koy ñaaral ba la ciy dugg président Macky Sall yàlla na amaat un deuxième mandat sans contestation barke Serigne Touba barke Cheikh Abdoul Ahad loolu moom mënuñu koo ñàkk wax am couverture maladie universelle da nga doon nous nit ñi jamono ji dañuy wax la santé avant tout nit su wérul du tala lekk nit ki su nous du tala naan nit ki du tala mais Machallah, le président de la République ñëw indil ñu mutuelle de santé mutuelle de santé bi boo avec 3500 francs koo ko le président de la République a ci 3500 francs avec sa famille nga am sa carte pour un an un an yooyu à chaque fois bu defee yalla def nga ñëw hôpital bu doon un ticket de 500 francs tu ne donnes que 100 francs ñaar fukki dërëm ngay joxé lool taw fee xéewal la so ñëwee ci biir hôpital bi dañ lay consulter très rapidement nga dem les médicaments les médicaments eBay su amé dans la dans au niveau du poste de santé du moins presque ordonnance bo évalue à 1000 francs malade bi 200 francs la ciy joxe kooku santat yalla bu wër la nit ñi gëmuñu ko woon ñi ko dund gëm nañ ko man Touba Bel dama jafe des problèmes Faut que ma cité ko. dama fa doon nekk parce que nekk fa sama ay moroom taalibe nekk fa sama ay moroom yoo xamante ni wax dëgg waa sëriñ bi la te ñëpp seen loxo jotul seen ginnaaw wax dëgg yàlla mais dem nañ ba mutuelle bi presque sax ni ñu doon woon faju si mais bi nga amee mutuel bi ñëw rek dañuy daal dañëw si hôpital bi gis seen bopp ci hôpital bi sur tous les plans loolu bu amee mu jàll yamul ci ci loolu de les zéro les enfants de zéro à cinq soo ñëwee moom macha allah amatul dagg sa ticket amatul jënd sa garab maladie yi médicaments yi disponible ci poste bi yëpp dañ leen koy jox ñu dem seen gratuitement faju ñu bis ci jàmm problème consultation yi aussi jigéen bu ñëw presque amatul loo jënd soo jëlee sa ticket boobu yaa ngi ñëw consulter wu correctement accouchement yi dañ doon fay presque le ticket à 5000 francs léegi boo ñëwee avec l'avènement de la consulte de la du mutuelle de santé yaa ngi joxe presque ay 1000 francs après l'accouchement kooku gratuité mënu ko raw nga accoucher dind sa ay médicaments presque doo ñàkk sa benn une petite somme ngay ñëm dem say woon am sa wér vaccination yi bu ñëwee ñàkk indi sa doom ñàkkal tout est gratuit ñibbi sa kër amul fiche boo jënd amul leneen looy dagg kon loolu président Macky Sall tam te ay ñaan la yu mag duñ ko ci war defal diggante boobu yaa ngi def say consultation ñu desale ay def ay problème dañ lay daal di yóbbu hôpital su fekkente ne par exemple yaa ngi ci biir mutuelle de santé bi xam nga ne échographie ku dem yaa ngi doon fay sa vingt mille francs des quinze mille ñu loolu tamit xam nga ni taw la à la nga def sa échographie yóbbu la ci dans les centres hôpital bi nga dem césarienne kit gratuite la lu am ci hôpital bi rapidement dans cinq jours da nga gis ko am hôpital une semaine 10 jours mu ñoo fa ñu jëndi ay médicaments sa borom kër dem ay jafe-jafe amatul soo ñëwee en moins de 5 jours da ngay demaat sa sañ sa ba rafet machallah sa bu xum du ku ñu opéré ak accouché normalement kon lolou vraiment aussi war nañ ko japp président Macky Sall dimbalé ko plan Sésame bi il suffit que indi sa carte d'identité présenté ko jeex tak amato luñ lay defal da ngay ñëw c'est les médicaments sont gratuits consultation c'est gratuite nga ñëw faju dem ñu baat tok sa kër kon lolou tamit war nañ ci jëg na japp le président Macky Sall li moy wax rek dama koy dellu la santé avant tout dialyse bi diñ koy waxoon y avait des présidents yo xam peut-être amuñu woon aperçu bobu wala xëy na réew mi won non ay dialyse 200000 francs na ma yàlla jéggal dialyse bi yóbbu na lu baree baree bare loo xam kenn mënu ko expliqué ci àddina mais léegi tout est gratuit bi président Macky sax bi président Ablaye Wade nekk indi ay dialyse à deux cent mille ah loolu le président suivant presque à soixante mille président Macky Sall xam na ne dialyse bi gratuité boobu foofu la gën a war a amee accès sax parce que nit koo xamante ne chaque semaine war nga dem hôpital chaque semaine ban Sénégal moo mën a génne soixante mille ou deux benn maladie ak say ordonnance ak say frais kon ci kaw loolu ñu ngi sant ñu ngi gërëm loolu rek doy na président Macky Sall macha allah. jërëjëf euh, maman Astou Bassel yaakaar naa wax na lu am solo ci euh, bilan président Sall ci wàllu santé suñu mbokku jigéen ñi gis seen bopp bu baax ñu wéyal sunuy kàddu ak sëriñ Xaadim Ndiaye euh, bu ko defee moom it dina continuer fi nga jeexale jël ay kàddoom sof ko ci sa yos waaye nam continuer ci côté emploi des jeunes ak financement yi nga xam ne. Eh, Fofu la daanele walu derbi bi ak yu mel noonu eh, bu ko defee nga leeral rek askan wi eh, foofu naka la fi président réagiré ba mën offrir ndaw ñi ay ay emploi maanaam am ak financement DER yi nga xam aussi tamit ñu bari ñu ngi jàpp ne ay financement partisan rek la muy waa APR ñoo ko yellool mais du jeunesse sénégalaise bi ñoo ko yellool sëñ Xaadim bismillah euh, assainissement yaakaar naa bi mu toogee li moy assainissement bu Touba sëñ Mor Lo wax na lim ci def mu xalaat nit ne dom adama buy dox da nga euh, febar da nga wér ci mbirum santé soxna si wax na ko waaye man damay wax ci infrastructure yim def ci santé mu di hôpital bi nga xamantene tay man bu doon te daf ko bayyi nonu man naa ne dañ koy démolir ñu continuer di dem ci yenen raison yi di faju ji mu ne dama koy réfectionné bu mu nek hôpital bo xam bu moderne la def ci presque 6 milliards ñuy wax mu indi ñu benen hôpital bo xamne daf ne sous récent bi euh, benn hôpital du ko fi gëna moderne té lu am fepp dana fa am muy hôpital bi nga xamantene ñing koy construire mu nekk ci digënté Dar Moussi ak Touba te bok ci Touba euh, yëmatul fofu mu ne ci dëkk réew mi bu ñuy wax Sénégal 95 yi dañu ne ay julit lañu mu dikk di construire euh, fi nga xamantene bo boo bëggee jaamu Yalla dañ ne la na sel mu ne fofu il faut mo construire lan ay jàkka ak ay juma ci kër kilifa diine yi ak defaral leen foo xamante ne bu ñu amee gan dana fa mën a nekk au ñuy am gan goo xamante ni sii tey dafa jóge ci réew yoo xamante ne dañuy dund ay suuf yi lañ wala dañuy dund diine ñu ñëw di gis euh, diine ji ni mel fii ak euh, yeneen yi mu construire lu mel noonu kon loolu laa ne woon dama ko ci def beneen bi ci des mooy ci ci wàllu social boo xoolee eh, ci eh, social li mu ciy def muy couverture maladie universelle boobu soxna si wax na ko jalis eh, bi soxna si wax na ko kon lu baree bari loo xamante ne lu ma bëggoon a wax mën naa ne bourse familiale bi gis nga ko mu ne France boo demee France tey suñ xaadim xam na dafay am ñoo xamante ne te foofu daf fi commencé ma jàpp ne état continuité la buñ ko falee dafay continuer waat ci loolu mu da koy def mu di réew dafa amel njukal ay ndawam muy ñu sakku xam-xam mu ne ah kon sakku xam-xam mo yër rew mu taxaw wal université sin salum université di Amadou Makhtar mbaw moderniser wat université Cheikh Anta Diop ba tay ku fa dugg da nga nan université bima duggon daw ak bima ma dugg ren wala bima duggon 2011 ak bima ma dugg ren ndax fofa la ñew wala ma fofa muy lu am solo mu ne kat université yi dañu war am indépendant mu ne kon dama leen di def université bu ci nek nga am sa indépendant am sa budget di doxal mu def ko bu Bambey bii nga xam ne directeur Cheikh Abdoulo ci ñun la bokk bokk ci comité euh, comité électoral bu Darou Khoudoss di zone 3 mu jiital ko fa boo demee Ziguinchor noonu la Assane Seck ak ñooñu ak ñooñu noonu la demee euh, euh, wax naa la léegi université yi su familiale bi comme li ma lay wax ci France France bu ñu jàngalee xale ba pare dañuy ne wax ku amagul 18 ans sax mayuñu la nga liggéey waaye dafa am lu lay ameel bu di ko wax euh, euh, RMI la defe naa bu ma juumut euh, RSI RMI mag ñi ñoo koy am RSI RSI boobu tey ku juddu dañ lay commencé di la toppatoo bu sax waajur néewee doole mu ne foofu laay commencé ba ba muy mën a àgg fu mag fi loolu amoon na ci yeneen réew Amérique am na fa am na Italie am na France di leen jox vingt 25000 yoo xamante ni si tey da nga ciy toppatoo njàngum xale mi xam nga loolu dafa am solo te loolu état continuité lañ wax ma jàpp ne loolu bu ñu ko toppatoo mu continuer dana dem a dem a dem ba tey euh, li ñuy wax semence ñu di ko fay ci réew yu mag yi tey nga xam ne euh, euh, réew yu mag yi ki war a mën a liggéey te mënta liggéey te mi ngi koy wër te amagu ko dañ ko amal salaire te foofu la réew yooyu commencé kon bu commencé foofu suñu xel dafay dal ci loolu dañuy am fierté yi ci lu demee noonu leen sant di leen gërëm ñu jox kàddu gi Serigne Cheikh Gueye moom it mu sànni ay kàddoom ci côté boobu. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp euh, su ma nuyoo Serigne Morlo mel na ni nuyu naa kilifa yi fi teew yëpp ci góor ñi su ma nuyoo soxna Astou Bassal euh, mel na nuyu naa jigéen ñëpp euh, pour waxtaan ak yéen tuuti ci loolu dana yomb ndax réalisation yi ma fi dégg yaakaar naa ni wolof dafay léebu nu ko gis nen ni nena gi loolu rek doyoon na. ma dégg ko fii ma toogaat pour confirmer ma li tax ma jóge feneen ñëw waaye bala ñu faa egg loolu lay leeral ñun dañu nekkan ci beneen parti ñu koy wax Teranga Sénégal yàlla dogal ñu ñun ñi ko seqoon tey defe naa ni sëriñ moor mii ni sama ginnaaw Abdou Seydina mi ngi ne Mor euh, du May mii ni toog di 15 responsable yoo xam ne kenn newoon naa leen kenn ku ci gën Darou Khoudoss amul bu nu demee ba jóg élection. benn nit taxaw ci rajo yeeg tele yi di changer système di changer système di changer système ba nu système yow war ngaa ragal kii changer système ban système lay changer. lu ñu nañ ci xalaat muy Ousmane Sonko comme ki nu àndaloon ci moom la jëm te ñun système boobu ñuy changer ndax système bu ñuy teree julli la. wala système boo xam ne mën na naa fekk ñu julli mu tëj suñu jàkka wala yee xew ci yeneen dëkk ñu di ko dégg ñu ne système bii ñuy dégg baaxul système bu fi Serigne Touba bàyyi Serigne Modou Moussa bàyyi ko fi ah. système bo xamante seigne Sëñ fi lako ba yow ngeen da nga ñew changer système bi ci yan façon changer nga koy changer ñu ni ki gëmuñu ko ndax bokk na mom gëm-gëm. ñu taxawal ben mouvement bo xamni mi ngi tuddu bokk gëm-gëm ñi ko encadré nek ni ñu tok 5 jours ou 6 jours ñu jëm élection xamni li lii muy changer bokk ak li ñu gëm ñun ñu def concertation tok ay fan. bi ñu toogee ñum ñu yëngal dëkk bi ñu xamni ne ñi tiit nañ ragal nañ te xamna ñu ne fa ñu jëm élection bi day baax muy zone électorale bi nga xamante moy Daru Daaru Xuddoos te fii nu di zone 3 ñu juddoo fi yaro fi magga fi war fi am résultat bu baax loolu moo nu indi fii pour ñu wax yéen bi ñu defee loolu it gis nañ ni si Abdou Bali daf ci dox dox ci dox ci ba nu ànd ak moom ci liggéey bii nga xamante ne ci leen tàbb si bi nu dikkee ñu xamaat ni fii ñu nekkoon tey ragalun fi ndax suñuy mag a ngi fi suñuy jigéen a ngi fi asubasel doon ma barki dem kaay ma jox seen numéro man ko bi nga jógee mag course bi nga jox ba léegi ci laay jaamu yàlla kon bu fekkonte ni dañu seqoon lu ñaaw mën na am sax loolu ne ko tey man ñii nga joxoon course ki nga joxoon kus gi muy sa doom ki ki ma jiite woon ci politique muy mor di sama mag tey jàppal ni say rakk ñi ngi daaru xudóos te dana mokk te mboolem coalition gëm bokk gëm-gëm dinañ mokkal fii asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jërëjëf Cheikh euh, Guèye ñu koy gërëm di ko euh, sant ci euh, intervention bi nga xam ne def na ko kon affaire bi système bi la Baye ibrakan Kane moom day bu nu ko gisee ci jotaay bi da xel mi day dem ci Daaru Xuddoos bien vrai que ñoo ngi biir Daaru mais dafa Daaru Xuddoose ba mu ëpp kon xeyna kon Darou Khoudoss loxoom mi ngi ci biir zone 3 donte ñoo mom zone bi bay Ibra yow exactement sa cadre exactement fan nga ko war a mën ci biir jotay bi ànd ak zone 3 liggéey bi ngir tabbi ci li falat présence salle ci 24 février 2019. di borom ëtt bi di serigne Ahmadul Mokhtar khalifa Cheikh Mamadou Moustapha ak mboolem njabootu Cheikh Mamadou Moustapha yeb euh melne cadre yi fi jibli tambalé ci coordinateur serigne Morlo buñ fi yemoon rek émission bi. doy na sëkk euh, parce que liñ bëgg xam rek te bëgg nit ñi xam ko rek mooy ki ñuy wooteel mooy kan lan la fi def loolu rek taxoon ñu fal ko ndax damay wax ne euh, Macky Sall nañ ko fi jëlee waaye 2012 ak léegi daa yàggul te moo na ñun doon ñoo ko tànnoon 2012 teg ko fi te ban ko fi tànnee li taxoon ñu tànn ko niñ koy gis mooy lan mu soppi war réewum Sénégal xam nga nag dañuy bàyyi xel ñaar président Macky Sall. lim fi indi munuñoo am lu ko gën sëriñ Xaadim Njaay wax na ko sëñ Fàllu Njaay wax na ko sëñ Mor la wax na ko daa yërutub xaalis da jëlub xaalis di may nit ñi nit ñi dañoo bëggut ko defarub réew ko defari nit lañu bëgg Macky Sall day defar am réew te ñun réew mi defaru lañ ñor ku bëgg liggéey da ngay wutub liggéey yi tama ne Macky Sall mënu dugg kër gu nekk xale bu nekk mu jël ab liggéey di la ko jox nañ liggéey jigéen ñi li muy def mënu koo passé jël financement teg ci barab jël ay liggéey ñaata euh, policier Macky Sall ñaata la ci Touba ñaata la ci Mbacké ñaata la ci Taïf département région de Diourbel ñaata lañ fi am loolu lëm lan moo tax mu def ko bëgg xale yi liggéey kon liñ koy delloo njukkal te tàmbali na te ñun ñëpp noo gis lim tàmbali liñ wax ci assainissement bi du ma ci delluwaat ndax man xuuse naa ñaar étage ba tàyyi Daaru Xudoos gi yàgg na maa fee xuus bu nu ko sañ dafa taa fal yàgg naa kon xam naa xuusum ndax man Touba la bañ naa ko dama yor oto mburu di servi kon fu fi daan taa xam naa ko kon nañ xam ne Macky Sall li mu fi def làmb daj la xool gis li ci liñ koy fayee nag mooy le 24 février 21h na Touba gépp ne wiiw Macky Sall kañe na le 24 février loolu nag ñun man damaa ngi wax man Ibra Kane képp koo xam ne. tey boo bu nit doon ramas dajeeg Ibra Kane nga ne naa ko génne ji maa ngi lay ñaan ngir jëm Serigne Touba nga wateel Macky Sall boo ko nortoon wateel nga wateel ngir Ibra Kane loolu man maa ngi koy ñaan ndax Daaru Xuddos ji nañ bàyyi xel ne électoral Touba Daaru dos la cent cinquante bureau de wat mooy Daaru Xuddos kon bu ñu fi gañee gañe nañ Touba suñ ko ñàkkee ñàkk nañ Touba te yàlla buñ ko ñàkk ci barke Cheikhul Khadim man nag maa ngi koy ñaan ci barke sëriñam ba Cheikh Saliou Mbacké mi ko boole woon ak sëñ Touba di doomi sëriñ Touba kenn ku ne xam ne ne Macky Sall campagne lu ko fa de euh, premier tour ca ca mandat bi jàll waaye doomi sëriñ Touba ko ñaanal sama sëriñ sama xarit sama lépp nga xam ne man li may wuti ëllëg ci moom laakaar mu sëñ Mbàkke Soxna moo ko boole doomi sëriñ Tuubaa ji mu ne ko li nga bëgg da nga ko am ba mu doon président dana ko doon dana ko doonaat soos soosaat lay doon. jërëjëf Baye Ibra Kane ñu ngi koy gërëm di ko sant kooku magum Daaru Xuddoos la yaakaar nañu ne dégg nañ kàddu gi nga xam ne moom la euh, yëkkati muy làmb daj joxe yokk joxe deuxième mandat yokk lu solo la euh, Cheikh Dieng moom la war a jox kàddu gi moom it euh, bu ko defee mu jël place boobu rek. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di jiital ci nuyoo bi la coordinateur Mor euh, su ma ko tuddee rek mel na ni tudd naa ñi fi teew ñëpp ci euh, teg bàyyi Ibra Kane mi nga xam ni suñu papa la te it euh, ñëpp xam nañ ni magum murit la ndax léegi bi mu yëkkatee kàddu yi rek ñëpp xam nañ ni magum murit la di. nuyu sëriñ Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi lool euh, te wér fi ñu ñëwee rek albasir mooy euh, organisation bi nga xam ne yàlla dafa dogal ñu dénk ko fii ci comité bu Daaru Xuddoos muy organisation bu tegu ci aw yoon ndax euh, Daaru Xuddoos dafa war a war a wone exemple ci comité yëpp Euh, bañ nañ ko ba war mooy dëkk bi dañoo sàmmoonte ak moom ci ndaw yi nga xam ne dañu ànd ak ñun yëpp bi ñu commencé war a commencé euh, café yi nga xam ni moom la ñuy def muy CPF yi le coordinateur dafa wax ni nañu wut sonorisation boo xam ni bu yam lay doon euh, ñu wut sonorisation bu yam ngir bañ di ci dugal yoo xam ni xumb xumb yi day tax maanaam Euh, mën na indi leneen ci dëkk bi te dañuy sàmmonte ak war mooy dëkk bi ñuy lancé appel nag ci ndaw yi nga xam ne ñi ngi ci biir Touba yépp euh, ñu wone exemple boobu ndax jàpp naa ni képp koo xam ne dangay jàppale président Macky Sall waroo wone lu yar ak ay teggin ndax moom ku yaru la ku am ay teggin la te gis nañ ni li mu am lépp yar ak ay teggin moo ko ko may kon nag ñun ndawu Daaru Xuddoos ñuy woowaat waa ndawu Daaru Xudoos yëpp ñu gën a feddaliwaat laxasaay gën a xam ni ñun waa Daaru Xudoos dañoo war a wane exemple ci zone zone yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi yëpp ginnaaw bi ñu ko defee ñu gën a yokkaat bu baax a baax jéego yi président Macky Sall nag li fi euh, suñu mag yi fi jaar wax doy na sëkk euh, yaakaar naa la coordinateur Morlo wax na ko euh, sëñ fàllu Ndiaye wax na ci suñu tànt Astou Basel wax na ci ak Baye Ibra li ñu wax rek doy na Euh, président sàll nag doon na koo xam ni ku neex a jàppale la ndax 2012 dañoo waroon ci nit ñi ni leen euh, kaay leen jàppale suñu candidat mu falu nit ñi jàppale président Macky sàll mu falu yaakaar naa ne bu liggéeyul woon ñun danañ rus delluwaat ci askan wi di leen waxaat kaay leen kaay leen mayaat ko deuxième mandat mais dafa liggéey lu wér loo xam ne ñëpp teg nañ ci seen bët. du ma ci dikkaat ci euh, di ko répété waat ndax ñi fi jaar wax nañ li nga xam ne si moom la def ci biir Touba te ñun ay taalibe Serigne Touba lañ te Touba dongo ñu ñor li mu def biir Touba nag euh, doy na murit yi te yaakaar naa ne murit yëpp danañ ko delloowaat fa mu nekkoon muy jox ko deuxième mandat kon wax ji mën naa ba ñu gudd comme euh, ñi fi jaar tënk nañ li nga xam ne mooy bilan Macky Sall wax nañ li nga xam ne mooy réalisation yi nga xam ne si def na ko kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf euh, Serigne Cheikh Dieng ñu ngi koy gërëm di ko sant don wax ci côté organisation ak euh, ndawñi waye tam sensibiliser ndawñi ci non violence muy lu am solo ci jamono campagne bi ne ko euh, le président Sall waxé diko sakko sàkku su ne ci ay militants ñu jox kàddu gi euh, soxna Bintu Diop ci turu jigen ñi ko fe mom mu jege si yëkkati kàddu gi nga mom la amé ci turu jigen ñi bu ko défé un après Inshallah, nous ñu soog tej tëj bi ci benn synthèse bu gatt ak Talla ak ma am candidat boo xam ne kenn amu ko candidat boo xam ne candidat Serigne Touba la euh, yenn saa yi ayre daf may jàpp sax parce que dafa am candidat yoo xam tey ji bi ñu dagaanee baatu askan wi ci lañ nangoo doon murit tey ku mel ne candidat Idrissa Seck su ma dégg mu naan murit laa ay réew daf may jàpp parce que Serigne Bara Dolly Mbacké dafa nekkoon assemblée nationale bi ñu nee sëñ Bara Dolly mu ne Mbacké mu ne ko fii Mbacké amu fi kon ku nangawul woon tey soo ne taalibab Serigne Touba nga yaakaar naa soxla carte Touba ñu jàpp na kii taalibab Serigne Touba mooy ki jël premier ministre am muy Boun Abdoulaye Dionne mu dëkk euh, mu nekk murit euh, mu nekk murit ku ne xam na ni jokk daaru mi ndam ca ba mu nekkagul ministre jàpp nañ ne kooku mooy murit kooku mooy candidat sëriñ Touba bu ma nee ñu am nañ candidat bi gën ci candidat mooy candidat bi nga xam ne si ne li jafe woon Senghor jafe woon Abdou Diouf jëfewoon Ablaye Wade mu ñëw teg ci loxoom muy gaz ak pétrole kon kooku yaakaar naa mooy candidat bi gën ci candidat yi candidat bi nga xam ne waxuma la lim def Touba waaye lim def biir Sénégal rek war na tax na ñëpp war koo wateel muy candidat boo xam ne su ma nee autoroute Ila Touba say ñaan Touba waaye candidat bi nga xam ne si ne buñ ne autoroute Fatick Tamba moom moo tax candidat bi nga xam ne si ne buñ ne Kaolack ak Kaffrine moom moo tax candidat bi nga xam ne si ne ne Kédougou jurubeel moom moo tax candidat bi nga xam ne si ne bu ñu nee dakaar Thiès kooku moo tax kooku mooy ban candidat muy candidat président Macky Sall candidat bi nga xam ne bu ñu nee Louga Saint-Louis kan moo ko def ñu ne président Macky Sall ci diirub juróom-ñaari at bu mu toogee kooku yaakaar naa def na bilan bu ko fal def na loo xam ne si ne war a tax Sénégal yëpp wateel ko. candidat bi nga xam tey soo masaan romb jam ñaajo daanaka bu ñu la fa wàccee guddi da ngay tiit ku ne xam ne ni jaaj jam ñaajo nu mel. candidat bi defar Dakar Arena candidat bi defar Dakar Arena. defar arène nationale ak yeneen ak yeneen yoo xam te bu ñu toogoon di ko lim jàpp naa ne ñun suñu bilan war nañoo mën a fal. Ah. te it moom nañ candidat bi nga xam ne moo gën ci candidat yi boo xam ne am na yar am na teggin yërëm na jigéen surtout ñun jigéen ñi. jàpp naa ne ñu ngi doog am président de la république bi nga xam ne seen président Macky Sall falu na ndax gis nañ fi 3FPT gis nañ fi formation DER yi ak yeneen ak yeneen nga bu ñu ko doon wax tey duñ fi maa ngi tënk foofu kàddu gi wasalaam. Diop jërëjëf ñu koy gërëm di sante mi ngi wax nak euh, bay apat di lim xamna liste bi xawa bari te yeggalut xamna bilan bi takku bilan bi bari waye xam benen yoon di nuyu ñi nga xamne aussi jaar nañ ci yaakar naane wax ji ku ko dégg xamne waxi nit la waye nak dang may permettre ma am tout luma ma Bintu job da ko doon wax sank te yaakar naane da ko ciof te faaw dañ ko wara a ba mu leer dafa wax ne président bi ñu am ñun suñu candidat du président Macky Sall euh, non violence la woote amul ben militant ou APR wala coalition Benno no coalition qui ba campagne tambole atay candidat bu a gis réseaux sociaux chaque jour na candidat bo ne la comme am xel comme moom bëgg boppam comme moom mu nax ko ci lu dul dëgg tuumaal le président Macky Sall wala tuumaal yeneen candidat pour falu mooy kooku nga xam ne moom moo doon xeex système comme ni ko seex Gueye doon waxee ba tey jii mu dem ñooxu ji ci ki nga xam ne moom mooy bàyyi système bi muy suñu bàyyi ab Ablaye wàdd donc nag kooku di Ousmane Sonko moom ku nekk xam na ne lépp lu muy créer day ñëw dajale ay nit moom ci jëmmi boppam ay nitu boppam. lay jël solal leen ay tisatu bennoo bokk yaakaar ñoom atta ñoom ñu attaqué seeni nit ñoom ci seen biir uniquement pour mën a intoxiquer jaxase xelu nit ñi jaxase président Macky Sall ak askanu Sénégal mais heureusement que askanu Sénégal xam nañu ne président Macky Sall du nit ku violent du nit koo xam ne dafa dafay tooñ wala dafay wane genn xamadi ku ne xam na ne depuis balaa muy nekk sax président mu nekk ci opposition bi mais lu nekk wax nañ ko fi musul tontu. loola mu nekkoon nag ba tey ci la nekk président Macky Sall nag gëm naa ne ñun dañ koo war a falaat ñun askanu Touba mais ñun ñi nga xam ne ñooy jeunesse bi ñun ñi nga xam ne tey gëm nañu ne Sénégal bi ñu bëgg mooy Sénégal bu ñu tabax pour ñëpp Sénégal bi ñu bëgg mooy Sénégal boo xam ne du ñu jël benn nit di ko nappaaje di ko di di ko dëggate dañuy jël nit ku nekk droit bi nga xam ne danga ko am ñu delloo la ko à 100 pour cent ñun kooku bu fekkente ne bi moom lañ doon wër am nañ ko muy le président Macky Sall ci réew mi lu nit musul liggéey ci réew mi Bintu Diop da ko doon wax waaye dafa am foo xam ne dafaa bàyyi mooy président Macky Sall euh, liggéey yu mu liggéey bi ma ci gën a jàpp boo xam ne daf ma tuuse te dafa am solo ci man mooy pont bi nga xam ne mooy pont Farafeñe bi parce que Sénégal dafa am indépendance am ab dëkk boo xam ne nekk na si suñu diggante maanaam xaaj Sénégal ñaar am beneen wàll boo xam ne mooy Casamance ñu sentir ci seen bopp que ne ñoom kat dañu leen génn ci dëkk bi parce que dafa enclavé woon tellement président euh, beneen bi fi nekkoon di Yaya Jammeh sëgg ca am lu mu cay def ba ku ne xam ne ne coow yi ëpp. ci yi fi doon am grâce a moom la doon am président Macky Sall ba mu ñëwee bokk na ci li mu njëkk def mooy xeex pour pont boobu noonu tey ñu tabax ko ba mu nekk tey yàlla def na mu am ba suñu classe gi nga xam ne ay commerçant lañ wala ay euh, euh, en tout cas ñu soxla foofu lañ ñu ngi man di dem di dikk en tout cas kon loolu moom bëggoon naa ko leeral mbalaa may jox ki nga xam ne moom mooy le koordinateur Morlo ma ñaan rek askanu Daarul Xudóos ñaan askanu Touba ñaan suñu papa suñu yaay yi na ñëpp pare mooy le président Macky Sall té xamné mo gën ci ñun mo gën ci suñum réew mo gën ci suñu ëlëk mo gën ci ëlëgu suñuy doom. jërë ngeen jëf euh, mbokk yi euh, yaakar nañu né dégg ngeen waxtaan wi ni nga xamné non lañu ko euh, commencé won ko ak Tala Sila coordinateur Morlo ak mboolem intervenant yi nga xamné ño fi jël cadeau mu nekkoon waxtaan wo xamné émission la euh seen émission tribune de la campagne ci Walfadjri 89.3 Mbacké Djourbel 102.4 àndoon ci ak sunu naataango yu Mouride Info ñu leen di gërëm di leen sant ci liggéey bu rafet bi ñu def ci département bi kon mbokk yi zone 3 la woon ak euh, El Bachir Amar ci seen émission tribune de la campagne ñoom ñu doon dérouler seen programme waaye itam waxaale askan wi liggéey bi nga xam ne président Sall def na ko ci Sénégal ngir yeyoo ab deuxième mandat boo xam ne incha allah ñu ngi koy séntu le 24 février bi nga xam ne moom la ñu dëkkmal jërë ngeen jëf mbokk yi wasalaamualeykum wa rahmatullah